cest à xam nga moom bu fi taxawul sax. Hmm. tey n'importe quel entraîneur mun na am palmarès bi mu am ndax ñun équipe bi ñu am c'est-à-dire bi yu mel nii. moo fi indi coupe d'Afrique de. waaw euh, mais li li mu am moom. Uh-huh. ne war nga toog ay décennies. Uh-huh. toog amaat un groupe comme ça moo tax boo si boo ko amee da nga siy da nga siy profité. Mm-hmm. xam nga Égypte teg leen na fi ay ay ay. coupe d'Afrique yu bëri. parce que instant boobu dafa ràññe woon sur Afrique. mais dafa dafa wone boppam. Mhm. mais yow bu fekkee ni danga am groupe bu mel nii bu ko yem ci benn coupe d'Afrique ak euh, ñaari coupe du monde yoo xam ne da ngay toog premier tour day nekk lu dommage. Mhm. parce que man ba léegi mënumaa baal Aliou Cissé. Mhm. coupe d'Afrique bi nga xam ne Cameroun moo ñu éliminé quart de finale dem jël ko. coupe boobu ñoo ko moomoon. gis nga Aliou Cissé. Ah, mais fay na la beneen. non c'est que xam nga Aliou Cissé. moom li ko muñal ci na la beneen. fay na la ko muñal li moom en tant que kuñ ko muñaloon nga am fi ay trophée yu bëri. Hmm. liñ ko muñal daa bëri. Ah, ah, ah, d' accord dinañ ci. dañuy surux la dugg. waaw léegi mu mu mu tàng léegi. mu mu bañ a sedd. waaw coach moom li mu fi wax nii moom. vraiment quand même.